historique moment historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne a peuple doit prendre son destin en main yeneen réew yi ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallaahi yéen laa koy wax la jeunesse 2024 ñu soxla réew mi 2024 changement commencé na faw 2024 yor yor ñaaw ñaaw yor yor réew mi jóge définitivement jog jam jog jam jaam bu mu jaam gi delloo si àll réew mi ci réew mi séddale ko séddale ko séddale bu maanu bu maanu lenn la projet ñu boole ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex ñu koy door koy door ñu woon suñu woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak sénégalais yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey mu tey ñi nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla yàlla ñu tere jël réew réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu. wallaahi yéen laa ko wax la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw. 2024. yor yor ñaaw ñaaw yor yor réew mi jóge définitivement jog jam jog jam jaam bu mu jaam gi delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko séddale ko séddale bu maane bu maane lenn la lenn la projet bi ñu boole ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex bi ñu koy door koy woon suñu woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak sénégalais yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey mu tey mu nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee gannaaw yàlla yàlla ñu tere jël réew yow mi bindu woon ci liste yi pour voter ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga uti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir vote da soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte. yow mi bind woon ci liste yi pour vote ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte. su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga wuti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voté da soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte. yow mi bind woon ci liste yi pour voté ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci senegal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte. su dee sa récépissé dafa réer da ngay dem polis nga wuti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voté da nga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte. yow mi bind woon ci liste yi pour voté ji xamal ni carte yi tàmbali nañ ko joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte. jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga wuti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voté danga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte yow mi bind woon ci liste yi pour voté ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga wuti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voté danga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte yow mi bind woon ci liste yi pour voter ji xamal ni carte yi tàmbali nañ ko joxe fépp ci senegal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé biñ la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga uti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi vision. Un discours mémorable qui marquera l'histoire. Préparez-vous à être captivé. Rejoignez-nous pour entendre les paroles inspirantes de notre leader, Ousmane Sonko. Préparez-vous, soyez prêts à vous immerger dans une soirée exceptionnelle, porteuse de renouveau, en route vers la victoire gérer sax avenir doomi ci sët la kooku jaamu yàlla mënu ko wax. ok salaamaaleykum ñu ngi fas yéene ak yéen ci ñaareelu vidéo bi moom nag ñaareelu vidéo la waaye def nañ ci ñeent yu bokkul euh, benn bu la ñu def ko ci benn jëm bu dee situation bi laaj na ko bu dee gàllankoor nañ sama candidature. kañuy fa ki ñu war a tànn ci candidat génnul ci ñeent yooyu waxoon nañ leen ci vidéo bu njëkk bi lan mooy stratégie bi ak naka lañ ko fas yéene doxale buñ ci tollee bu ngeen dégloo vidéo bi di ngeen doxi fekk lañu xalaatoon am na mooy ñoom seen plat bi ñu laloon te plan bi jubluwuñ ci du liquider Ousmane Sonko liquider Pastef fexe ba candidature Ousmane Sonko du musa am fexe ba li ko war a téye muy fi nekk waaye fexe ba kenn koo xam ne bokk nga ci Pastef wala jege nga Pastef doo nekk candidat moo xool leen fan lañu bëggoon a jaar ba loolu ñu lal ñoom ñu lalli ko loolu waxoon naa leen ko ci premier vidéo bi kon vidéo bi bu ngeen ko dégloo rek mooy laa ñu dégg ne fa la ñu bëgg a jëm te ñaan yàlla mu wàññi mu gën a am ba war a tax nag ñu defarwaat xoolaat suñu stratégie vidéo bi ma lay fas yéene fas ci waxtaan ak yéen ci tànneef waxoon naa leen ni danañu fexe ba jàllale lu ëpp benn candidat man mii sax sama candidature bu jàllee du teet nañu fexe ba jàllale yeneen candidature dañu fexe ba déposer yeneen candidature fexe ba ci candidature yooyu moo am yu bu gannaaw loolu nag dañ dellu si tànn tànn gi fàtt ma fàttali ne li ma waxoon mooy tànneef bi ñaar la imma ma tànn proposé kenn ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp daa bàyyi seen candidature ñëw jàpp ci gannaaw ñu dem ci élection yi gañu ko ci kàttanu yàlla wala bokk ma tànn kenn ne kii mooy candidat bi waaye bu fekkee bu doon fekk na ci jamono jooju yàlla jàllale lu ëpp benn ci suñuy candidature ñeneen ñi ma bañ leen wax ñu bàyyi seen candidature dañuy maintenir seen candidature mais day doon candidature boo xam ne day dooleel candidature principale bi ci ban anam mooy ñun ñëpp dañuy bokk benn programme muy programme bi nga xam ne moom la ñu tënk liggéey ci depuis ay ati ati at présenté woon ko Sénégalais yi deux mille dix neuf gën koo toggaat nag defaraat ko muy programme Sonko président ñu bokk ñaareel bi mooy ñu gën a yaatal suñuy temps bu ñu waroon am benn temps d'antenne ñu mun ci am temps d'antenne yu bëri yoo xam ne benn bu nekk nag programme bi ñu bokk ñun muy programme commun bi candidat bi ci lay jukki benn poñ wax kook Sénégal yi ba Sénégal yi xam xam la ñu bëgg a jëm ak ñoom muy la am sol ñetteel bi mooy ñu mutualiser ci suñu campagne mooy ñu fexe ba candidat yi ak nu mu ti toll ñu dajale leen def benn taxañ ba campagne bi yomb ci kenn ku ne ci ñoom. moo xam dañuy def benn caravane nationale unique bokk ko wala bokk ko ci lu ëpp su dee campagne bi vingt jours la mu tuuti tuuti ñu am quinze jours yoo xam ne wala dix jours yoo xam ne ñoo koy bokk benn caravane nationale ñu dajale suñu doole ndax campagne dafa métti dafa laaj xaalis bu bari laaj ay moyens laaj ay oto laaj sécurité laaj dund du lu yomb waaye bu ñëpp daje day gën a yomb. te ñi Sénégalais dinañ xam ne ñii ñoo bokk projet mu beneen affaire boo xam ne lu am solo lay doon ñaari possibilité yooyu moo am waaye dinaa ñëw ci lan laa tànn ci ñaari possibilité yooyu wala balaa may dem ci loolu dama leen ni wax la laa tànn ci ki nga xam ne war a doon candidat bi incarné le projet tànn yombul tànn éliminé la xaw ma nag ñaata candidat la ñuy am tollaguñ ci waaye buñ ci tollee xam naa yaqin ni war nañu mun lu ëpp benn candidat buñ leen jàllalee nag ci candidat yi jàll bu dee candidat Bassirou Diomaye Faye jàll na moom mooy doon sama choix man mu doon candidat principal bi nga xam ne mooy porte projet bi mu doon candidat bi xam ne ci moom laa woo Sénégalais yi ne leen woteel leen Bassirou Diomaye Faye mu doon candidat boo xam ne moom la teg lox projet bi ci loxoom mu incarné ko en tant que candidat ndax xam ngeen parce que projet collectif la waaye élection présidentielle dañ naan c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple moo tax collectif bi day jàppale góor kooku ñu tànn moo xam góor moo xam jigéen la kooku nag sama tànneef day méngoo ak Basiru Joomaay Fay tànn gi ma tànn Basiru nag defe naa du bett kenn mënoon na doon kenn ku nekk ci ñen ñeneen ñett ñi nga xam ne préparé naa leen woon ay vidéo ne mën na doon kenn ci ñoom di ko xaar na ba ñu egg ci jamono jooju la fay xew ci diggante fii ma toll nii ci mois de juillet deux mille vingt trois di wax ak ak ba ñuy toll ci lool muy mois de janvier te xam ngeen ni liste ba nu mu gën saa gën saa gën saa gudd le euh, euh, le le le le vingt janvier da conseil constitutionnel di génne diggante fii ñu toll ni juillet ba vingt janvier nu tuuti tuuti juróom-benn weer la lu la mën na fekk bu dee du man de Ousmane Sonko mooy doon candidat bi ma ñeenti vidéo yi nga xam ne defar naa ko mën na doon kenn ku ci ñoom waaye ci bii vidéo ma biral leen ni Bassirou Diomaye Faye laa tànn muy tànneef goo xam ne dama wax léegi ni du bett kenn ci Sénégalais du bett kenn ci waa bitim réew sax ñeneen ñëpp mënoon na doon ñoom mérité nañ ko am nañu sama confiance dama toog xalaat ci ay critères critère bu njëkk mooy candidat bi lan mooy profilam lan mooy euh, meloom ci li nga xam ne wàllu xam-xam la ñu koy profil intellectuel ci li nga xam ne wàllu formation la ci li nga xam ne wàllu jaar-jaar la ndax dama leen yàgg wax ni un homme politique dañ koy natt ci discours am waaye dañ koy natt surtout ci parcours mooy politique du wax kese politicien boo jël mu ne la maa fi gën a baax maa fi gën a jub maa fi gën a set maa fi gën a bëgg réew mi waaye est ci jaar-jaaram bu ñu xooloon jaar-jaaram méngoo nag loolu loolu tam sénégalais bu ne war na ci di bàyyi xel ndax. njuumte ñu dal yëpp ci tànneef li andi mooy dañuy topp rek waxu politicien bi waaye duñu xool jaar-jaar ñaareel bi nga xam ne moom moo moom lay jiital ci critère mooy expérience muy lu am solo expérience am na solo mooy nit ki jaar jaar lan la ko war a jox ci xam-xam ba ñu yaakaar ni war na am na jox réew mi ñetteel bi ma jiital mooy kamay tànn naka la méngoog li nga xam ne mooy infrastructure parti bi nga xam ne moo war a porter liggéey bi mooy parti wala élection dafa am lu koy porter mooy machine bi appareil électoral bi élection dafa am lu koy porter mooy électorat bi ñiy dem nga xam ne ñëpp bokk ñi ci parti bi ñii bokk rek ci parti bi ñii sympathisant lañu rek mooy dañaa bëgg dañ laa bëgg rek ngir yàlla dañ laa bëgg ci yaakaar gi ñu am ci yow ne mën ngaa defar réew mi kon loolu dafa am solo ma xool tànn bi may tànn fi may tànn naka ba ci ban degré lay méngoog loolu parce que boo tànnee mën nga tànn koo xam ne profil am baax na lool waaye bu dee boo ko tànnee na ci infrastructure bi na ci base bi nga xam ne ñoom ñooy dem ci lu ëpp seize mille bureaux de vote ci réew mi ñoom ñoo ko war a toog ñoom ñooy dem dugg di def porte à porte kër kër di def campagne dugg ci marché yi ñoom ñooy mobiliser électeurs wala lenn ci sympathisants yi nga xam ne doonte bokkuñu ci parti bi am nañu yéene voté pour yéen bu dee boo tànnee ko jëmm jooju donte profilam baax na lool ci wàllu intellectuel ci wàllu diplôme ci wàllu loxoy set waaye bu dee boo ko mën na andi Euh, euh, friction mun na tax ñenn ci ñi war yenu liggéey bi ne gisuñu suñu bopp wala ñu gedd ba dem bu boobaa it tànn ndax loolu dafa am solo moo tax am na yeneen anam yuñ doon nekk tànneef bi dañ koy delloo Sénégal yi delloo ko militant yi delloo ko base bi delloo ko Sénégal yi électeurs yi laaj leen ban lan ngeen ci xalaat waaye damay njot ni temps bi ak situation bi du ko ñett yooyu dafa am solo ñeenteel bi nag mooy keñey tànn naka la mel ci projet bi naka la mel ci projet bi bu ma jëlee ñeenti critères yooyu dinaan wax ni choix bi ma def ci Bassirou Diomaye du choix wu choix de cœur choix de raison la mooy tànn ma ko ci cofeel wala ci mbëggeel wala ci parparlo waaye dama ko tànn ci xel ci xeltu ma xeltoo ba dajale gis ni profit bi ku ko jiital ma ànd ci puus ñeneen ñëpp ñëw jàpp victoire bi na yomb lool naam Bassirou Diomaye sama rakk la ñëpp xam nañ ko Bassirou Diomaye duñu ñaar benn lañu mag moom muy ko xam ne jamono ji ñu toll ma toog sama kër nii ñu bari dem moom mu nekk prison Cap Manuel la yóbbu prison Cap Manuel cofeel gi mu am ci man ba mënul téye boppam moo andi ndax keroog bu ñu ne euh, convoqué nañ ma ci tribunal wala xamu ban xew-xew moo amoon bu ñu ma ne convoqué nañ ma ci tribunal ci la Basiru mer ba bind texam ne magistrat dañuy jàmm Macky loolu rek moo tax ñu yóbbu ko prison Macky magistrat yi dañoo dañoo toroxal seen bopp ci kanam Macky Sall yenn magistrat yi boobu loolu moo taxoon ñu jàpp ko yàgg maa xamante ne moom impôt damay nañu boole gën saa gudd su ma juumul 2007 wala 2008 lañu lañu lañu lañu njëkk a gisee kon yarawuñu màggandoowuñu waaye yàlla mooy def loolu cofeel googu yóbbu ko ba yàlla wërsëg na ko wërsëg doom mu tuddee ma ko man mii te loolu suma juumul 2016 la woon dañ may tàkk ci fonction publique dañ ma tàkk ñu tekki ñetti euh, semaine wala ñaari semaine yàlla wërsëg na ko doom mu tuddee ko mu tuddee ma ko kon kooku kenn mënul lam-lame sama digganteeg moom ci wàllu cofeel wàllu mbokko sama rakk la sama xarit la noonee pat Basiru mel ak man noonu la ñeneen ñëpp mel ci man Biram Souley noonu la ñu mel El Malick Ndiaye noonu la ñu mel Abbas Fall noonu la ñu mel Maymuna Jéey noonu la ñu et cetera parce ay frère lañu ay sœur lañu militant yi ma bëgg ba mu jaral leen lu ne te man xaw ma leen te mosuma leen gis ñoo ëpp sax milit ñi nga xam ne xam naa leen te ñu jege ma loolu mooy Pastef nous sommes des frères et des sœurs yàlla def nag Basiru yegg ci foo xam ne sama diggante moom du loo xam ne dañ koy laam-laam ba mu dugg ba ci suñuy famille jaxasoo waaye ànd ak loolu yëpp nag Basiru tànn ma ko ngir loolu de tànn ma ko ngir suñu amitié tànn ma ko ngir li li nga xam ne dox na suñu diggante déedéet man du politiquer noonu dama leen musa wax ni. la jëm ci réew mi awma ci sentiment awma ci rakk awma ci mag awma ci baay awma ci doom intérêt Sénégal bu ngeen di fàttaliku élection présidentielle deux mille dix neuf bi ma demee ba bi Bignona nga xam ne fala cosaanu muy département boo xam ne sama dëkku baay falane dama wax ak ñoom ne leen bu leen ma wooteel mukk parce que seen doom la bu leen ma wooteel mukk parce que seen mbokk la bu leen wax leen bokk parce que ñoo bokk xeet wala ñoo bokk gox déedéet waaw su ngeen may woteel da ngeen may woteel parce que jàpp ngeen ni li ma leen woon ci xam-xam ak ci jikko ak ci bëgg réew war naa justifier ngeen woteel ma moo tax duma tànn ci yaa neex dama tànn Basiru ci critères yi ma wax ma jiital léegi mooy bu ci njëkk mooy lan mooy profilu Basiru Diomaye ku ñu ne jàng na sans fot ba am maîtrise def concours école bi ñu ne moo gën a kawe ci administration sénégalaise muy ENAM réussir ko dem def sa formation génn nekk inspecteur des impôts liggéey fa liggéey bu mucc pay ko ba nekk tey inspecteur principal am ay jaar-jaar yoo xam ne kenn du ko werante ci biir impôt liggéey ci biir impôt lu mat léegi pratiquement vingt ans te kenn mënul taxaw ne Bassirou Diomaye mus naa jël dërëmu jàmbur wala mus naa jël terrain jàmbur dama ko yàgg wax ci sama bopp noonu ma ko waxee ci sama bopp laa ko mën a ci Bassirou Diomaye Faye gëm ni moom a gën a jug man kon kooku su dee ci wàllu déontologie mooy loxoy set fett na boor sudee ci wàllu xam-xam fett na boor ndax ba ñuy formé ñi war a yor état wala ñu formé ba Diomaye Faye te mu liggéey nag en tant que haut fonctionnaire ci état boobu léegi di xale boo xam ne ku ko xam rek intelligence am nga ko nawee Bassirou est un homme extrêmement brillant macha allah te bi muy nekk école primaire ba léegi seede boobu lañ ko seedeel mu ànd ceeg tey ak dal waxam moo bariwut li muy xalaat moo ëpp li muy wax bu xalaatee ba pare li muy jëf moo ëpp li muy wax kooku mooy Basiru Jomaay Fay am na yar am na teggin dal na Basiru Jomaay Fay bokk ci projet bi depuis le début ñi ma ñëw woo ne ma dañoo bëgg a taxawal parti te il faut nga ñëw buñ ma woowee ba pare damaa woo Bassirou Diomaye Faye woo Birame Souleye Diop woo Aïcha Touré woo euh, euh, nu mu tuddee ci euh, comment ça s'appelle encore Jamil Sané Matar Sène moom moom bokk na ci ñi ma jël si man ñoom ñoo sumb parti bi dëgg-dëgg. ma woo ñële ñu ñëw ne ma su dee yow dinañu dinañu bokk ndax fas yéene wu ñu woon def politique ci suñu dund bës boobu ba keroog bi ñuy def assemblée général ba taxawal parti bi Bassirou Diomaye mi ngi ci projet bi ñu dénk ko fi mouvement des cadres ba programme bi may wax Bassirou Diomaye moo coordonné moo coordonné bi ñuy bind programme bi programme bi ñuy wax moo ko bind ànd ak cadre parti bi ñu dénk ko fi diaspora bi mu boole ko cumulé ko ak mouvement des cadres boo laajee waa diaspora kuy Bassirou Diomaye Faye dara nga ko wax ba ba fan yële passé wala ay weer ci gannaaw ñu gis ni parti bi jar naa defaraat jar ma jël li nga xam mooy xoolu parti bi li nga xam ne mooy coordonné activité parti bi moo téye parti bi ndax Pastef ni mu bindoo man dama leen ne ba ñuy def parti bi dama leen ne man duma doon président boo xam ne day téye parti di gérer section yi di gérer coordination yi man bëgguma loolu kon nañu ut loo xam ne mooy gérer loolu poste secrétaire général Pastef kooku moo xam parti bi moo yor parti bi mooy coordonné ak département yi mooy coordonné ak commune ma coordonné ak mouvement yi les femmes les les jeunes les cadres les enseignants magi Pastef euh, euh, nitu daara yi mooy coordonné avec les euh, les démembrements de la diaspora kon kooku xam na parti bi parti bi xam na ko it mu doy ma ma jël loolu teg ci loxo kon su dee par rapport ak projet bi muy deuxième critère bi Basirou matale na ko ba mu mat sëkk. ñetteel bi mooy par rapport ak expérience ndax bu ñuy wax expérience da ngay dégg nit ñi naan la kii homme d'état bu mag la ndax nekkoon na fi ministre nekkoon na fi directeur général nekkoon na fi ministre d'état nekkoon na fi mais loolu ça ne veut rien dire état Trump mosul nekk ministre mosul nekk euh, euh, euh, premier ministre mosul nekk secrétaire d'état keneen ak keneen ak keneen président yu bari mosuñoo jaar foofu waaye expérience bi ñu gën a intéressé ñun mooy est-ce que xam nga état nu muy fonctionner loolu Bassirou Diomaye xam na ko ndax moom la jàng loolu rek la jàng est-ce que am nga xam-xam loolu kenn teetu ko yàgg ngeen toog di seetaan Bassirou Diomaye est-ce que say loxo set na kenn weranteetu ko est-ce que tey buñ la newoon état ngi nii suba nga démarré peut-être minute bi sax mun naa Bassirou Diomaye dina démarré waaye li gën a neex mooy Pastef projet la Pastef du mbirum benn nit moo tax équipe la ñuy demee dañuy demee équipe kon ma jàpp ni expérience bi ñu soxla pour mun a yor réew Bassirou Diomaye yor na ko man sëkk sëkk sëkk sëkk Senghor biñ koy jox réew mu musul woon yor réew Ablaye Wade biñ koy jox réew ñaari yoon la dugg ci gouvernement def fa quelques weer génnaat waaye musul woon réew sooy xool président adduna bi néew na koo xam ne nekkoon nga ci appareil d'état bi c'est-à-dire en tant que ministre wala gouvernement bi demee ñu bëri musuñoo jaar foofu te ñi gën ci président yi nag mooy ñoo nga xam ne jotuñu leen formaté ci système bi ba yàq leen léeg li ci ëpp ñi gën ci président yi mooy ñooñu. kon ay gis wax ji day bëri waaw diw am na expérience nit yàgg na ci gouvernement lan la fa am ci expérience randal alal réew mi complot jaay réew mi waa bitim réew ñun dañoo soxla lu bees lu yees lu ànd ak xam-xam ànd fit parce que réforme yi ñu war a def ci réew mi dafa laaj fit jëlaat suñu bopp moomaat suñu bopp dafa laaj fit waaye dafa laaj aussi xam-xam mais dafa laaj loxo yu set dafa laaj koo xam ne amul fenn fu la gaay mën a téye ba di la te loolu lépp daje na ci Bassirou Diomaye muy lu ma leer lu may lam-lami kon critères yi ma daje yi ñu dajale yëpp boo ko dajale ma nga muy bu mujje mooy choix bi nu mu yomba expliquer ni mu gën a yomb layalee rek la gëne choix bi nga xam ne jarul lay yu bëri mooy choix bi gën bu dee da nga war a choisir ba pare war a expliquer lu bari war a convaincre nit ñi li tax ma tànn tànn bi li tax et cetera te nga xam ne dañuy dañuy jege élection ndax vidéo bi may def lu génn lu dul liste définitive bi génn na ba pare la ñuy dox suñu diggante ak bi na gàtt gàttaay boo xam ne. boo ci buggee nekk di convaincre nit ñi wala nit ñi tasaaroo nga war leen dajalewaat di andi dina xaw metti te loolu gaw ma ni li nga xam ne mooy porte mbir mi ci infrastructure Pastef suñu ne tànn nañu Bassirou Diomaye dina jaar dina jar ay lay ak ay wax yu bari waaye dama gëm sax ni li Sénégalais yépp nag nga xam ne tey ñépp bëgg changement te yaakaare ko jaarale ci ñun boo nee tànn naa Bassirou Diomaye dina ci am kenn koo xam ne dina ne incohérence am na ci du ci am kenn koo xam ne di nga obligé demande di ko expliquer pourquoi kon loolu yëpp daje na gëm naa ni su ma tànnee Basiru li nga xam ne moo porté li ñuy def nii ndax ku ñu àndal rek da nga ñëw jàpp ci liggéey bi yokk ci li nga andi waaye ñun ñëpp xam nañ ni te loolu yàlla ko tudd nee naa leen duñ suñu mérite lay base bi dëgg dëgg dëgg mooy Pastef ak infrastructure moo tax loolu il faut ma sédd ko ci choix bi naam te ñu ma tànn leneen buñ ci tollee dem leen uti fiche am na ci ñoo xam ne tey am nañu profil bu mucc ayib ci wàllu intellectuel ci wàllu jaar-jaar ci wàllu expérience ci wàllu léegi-léegi lii du choix boo xam ne dama koo jël ci parparloo rek wala kii moo a neex bañ jëm nag soobe soobee yàlla dañ ci yegg am na ci loo xam ne waxtaan naa ci ak yenn ñi nga xam ne bëggoon naa ñu dem jëli fiche wax leen bu ñu demee ba étape bu nekk lan lay méngoon ba bu ñu demee ba yàlla may ñu gañe bu ñu demee ba yàlla may ñu gañe am na loo xam ne du waxu mbedd du ma ko wax fii mais na ngeen xam ni lépp lu ñu organiser la ba pare te di ngeen gis ci weer yi ñëw di ngeen xam ni lépp matuñu nag waaye pratiquement lépp organisé nañ ko ba pare su nekk ñu teg ko ci temps moo tax su ma leen ne même gannaaw bu ñu gañee ba pare organisé nañ ko ba pare te bu soob yàlla dina léppay baax ngeen war maa kon tànneef bi loolu la may ñaan nag xaw ma yan candidat ñooy jàll de mais beneen candidat bu jàll maa ngi lay ñaan nga nangu choix bi d'abord ba pare jëmmal ko jëmmal ko wax ak sénégalais yi won leen ni nangu nga choix bi ànd nga ci à cent pour cent te dëgg ci dem ba jeex parce que wax naan ko ci première vidéo Pastef du projet wu nit du projet wu mën a mën a mën a sudul man rek euh, ma xëpp ci suuf budul man rek mer na xam naa sax ñi ma tànn ñëpp nag ne ne ne nañu dem bouti fiche nañu dem déposé xam naa ni kenn melu ci waaye nag dañuy fàttalante rek ndax fàttali baax na te seytaane dafa gaaw dafa gaaw fëkk nit may fàttali rek man def naa sacrifice bu ne jël naa sama sama sama jëmm sacrifié ko sacrifié liggéey sacrifié sama liberté sacrifié sama famille sacrifié lépp bu dee nag sacrifié naa loolu yëpp teewul bu dee intérêt bi intérêt général ak intérêt Sénégal taxaw na ma ne mun naa effacé wu pousse ñeneen ñu dem kon waxu kenn kenn warul xalaate neneen kenn amul droit xalaate neneen may ñaan ñëpp nag ñu jëmbal lool waaye waxoon naa leen ci premier vidéo bi rek ni am na ay schéma yu taxaw ndax dama naan ñëpp nañu yeneen candidat yëpp nañu bàyyi. mu des benn candidat wala dañuy bàyyi yeneen candidat yi ñu jëmmal ñu jàppale candidat boobu Bassirou Diomaye jamono ji ñuy wax ni ma kap man yoon tëdd ndax bi fiyeeg boobu dinañ ko ba xaw ma ndax dañ ko bàyyi mu def campagne bu dee ma nga fa ci ba jamono jooju xaw ma ci yoon dañ ko war a bàyyi bu dee jamono ji egg nañ foofu te man te nañ ma nekk candidat te moom ñu désigné ko dañ ko war a bàyyi au nom du du principe de l'égalité des candidats mooy état dafa war a tolloole candidats yëpp d'autant que fi ñu toll nii amul dara luñ ko condamné détention provisoire la jaay doole mandat de dépôt détention provisoire atte wuñu ko condamné wuñu kooku loo koy téye su ñu demee ba conseil constitutionnel ne kii mat naa jiite réew mi war naa mën a nekk candidat kooku état amatul droit jàpp ko dañ ko war a bàyyi mu dem defi campagne waaye li doon wax mooy yeneen candidat yi la ma bëgg ci ñoom la may proposé bo pour le reste nit ñi nag mun nañu daje waxtaan xool ndax bëgg nañ ko defee neneen waaye su ma sañoon yeneen candidat yi bu dee ñeent c'est-à-dire bu dee li am ci candidat yëpp matul cinq bu dee soo génnee Basir mi ma tànn yeneen ñi matuñu ñeent dama ñaan li ma jàpp man mooy dañu war a maintenir seen candidature ndax day gën day yokk rek suñu capacité communication waaye na Sénégal yëpp xam ni bu wat ba jotee benn Bassirou Diomaye la ñu war a waxtaan ñeneen ñi nañu maintenir seen candidature mu gën ñoo yokkal temps de communication gën ñoo yokkal temps d'antenne ca lay jàll RTS waaye gën a diversifier également euh, possibilité yi ñu am ndax bu dee ci candidat yooyu ma tànn kii Cees dëkk kii dëkk Malicounda kii dëkk Linguère ki dëkk Daara Jolof ka ca des dëkk nu mu tudd ci Ziguinchor kii dëkk et cetera mun nañu bokk def campagne def benn caravane nga xam ne dañuy dañuy maximiser suñuy moyens ku nekk sa temps d'antenne bu jotee nga wax sa cinq minutes wala sa dix minutes xamul bi ñaata lay doon. caravane boobu mun na sillonner le Sénégal ensemble mais mun na am fu ñuy toll kenn ko nekk na léegi maa ngi jël telle direction wala maa ngi dellu fu ma dëkk moo xam cinq derniers jours wala sept derniers jours maa ngi dem ci zone bi mokkal foofu mu gën a mokk waaye lépp campagne bi weesu ñu def ko ci cadre programme commun bi ñu yor muy programme Sonko deux sama gis-gis la waaye loolu ubbi naa ko. ba coalition bi mun na toog waxtaan waaye candidat yi ñoom ñëpp ñu xool seen bopp ku nekk xool li bëgg ku jàpp ni lool mun na cee dugg wa ku jàpp ni moom dafa bëgg a bàyyi candidature am waaye day ñëw ràcc ci gannaaw joomaay malgré tout def campagne ba baax na waaye sama xalaat rek laa joxe boobu ubbi naa ko boyal naa ko bàyyi leen ngeen mun cee waxtaan. tànn naa nag joomaay fay xam naa ñiñ ko seqal ñu ñu. ci mën a wax lu dul dëgg ci soxor ci mën a sos seen dund yëpp sos la dinañu fay ay nit def nañ ko ci Ousmane Sonko ay ati ati at te teewul loolu dafay yokk dayo Ousmane Sonko ci askan bu ñu demee ba xam ni nag seen pexe sotti na ba tere nañ Ousmane Sonko nekk candidat keneen ku Ousmane Sonko tànn di ngeen déglu ne ci moom bu bon la. fasoxat la eh, terroriste la salafiste la bëggul sa si eh, fa mu dëkk sax kenn du ko fa xool nangam doone di ngeen ko dégg waaye seen mënin la jikko ngeen baal ma ci kàddu gi jikko naafeq la ndax booy xool ci alquran li ñuy wax ci jikko naafeq loolu bokk na ci loolu mooy seen jikko loolu rek lañu fa sos wax lu bon fay ay nit ñu bind fay ay nit ñu dem ci tele di wax waaye Sénégal yeewu nañu yew goo xam ne looy gën a yokk ci nit rek Sénégal yi di ko gën a yëkkati ñoom ñooñu ñëpp boo leen dajale ko man maa leen ci benn balance jël Basirou Diomaye teg ci beneen bi Basirou Diomaye mooy wàcc ñoom yéeg kon dama bugg a Sénégal yi nii proposé wu ma koo xam ne mën nañ ko sikk ci dara sénégalais cent cinquante pour cent xam réew mi bëgg réew mi di ko juba ko juba jub ku jàng ba xam li mu war a xam yépp liggéeyal état bi dugal fi ay milliards yi milliards te mu see jël dërëm suul jël terrain wu jàmbur kookee laa leen mooy suñu candidat te bu soobee yàlla keroog le vingt cinq février mooy gagné élection bi dès le premier tour gañeel ñu ko si suñu tour ñun ñëpp incha allah ci gannaaw bu ñu defee li ñu war a def ñun ñëpp mooy takk suñu digg may dellu nag di lancer un appel à tous les sénégalais de tout bord projet bi seen projet la de Pastef amul frontière nit mun na toog xalaat ni ah ñii de est-ce que su ma demee duñ ma dàq est-ce que su ma demee am na place ci projet bi wala maa ngi faroon ci euh, fii wala maa faroon fële est-ce que su ma demee dinañ duñ jàpp jàpp ni méngoowuma ak ñoom déedéet parce que ànd na ku nekk fii talal na loxoom ñëpp lenn rek lañu laaj kenn ku nekk boo ñëwee nangul règle yi mooy ñu ñëpp dañoo war a ànd suppi li li fi xew mënul wéy randal alalu réew mi détourné ay milliards dugal sa poche ak sa njaboot wala yóbbu ci ay banque denc jamono jooju jeune jeune yaa ngi bëgg de dee dem contrat bu la neex ñu jël alalu réew mi yëpp tubaab yi génn yóbbu ñun ñu toog fi di di sukuraat te ku bëgg a gém seen réew ñu ne doo fa dem tënk ñu tënk boo xam ne suñu koom seen loxo la nekk suñu koom seen loxo la nekk suñu koppar sax seen loxo la nekk ñun moomuñu fi dara loolu la ñu bëgg mu jeex. ku ànd ci loolu boo ñëwee ànd ci fas yéene ñu ànd liggéey ci loolu am nga sa place ci projet bi kon maa ngi tendre sama maa ngi maa ngi tàllal sama loxo ñëpp bu ñu topp ñu ci yeggee candidat bu ñu recalé da nga nekkoon ci candidat opposition bi tàllal nañ la suñu loxo di la nga ñëw dugg ci projet bi bul ay conditions yooyu teg jaru ko du marchandage réew mi lañ jiital waaye bu ñu yàlla joxe réew mi kenn ku nekk ci na nga toll ak la nga war a mën a yor dañ la dénk nga liggéey waaye nga liggéey ngir yàlla rek ak liggéey ngir yërëm askan wi la ca war a am ci payoor di nga ko am yem ca ba ca yokk dara la war a am ci payoor da ko am te bañ cee yokk dara loolu lañu woo Sénégal yëpp amuñu ci barrière amuñu ci frontière intellectuel yi engagement dafa jot de réew mi ko laaj Sénégal yi ndax dañoo am intellectuel yoo xam ne macha allah tubarfakàlla te engage nañu ci seen façon ndax lu xew ci réew mi nañ joxe seen xalaat waaye dafa jot deux mille vingt quatre bi tournant la boo xam ne waruñu ko rate dafa jot ngeen gën a sóobu waa diaspora moom chapeau yéen moom su ñëpp meloon yéen heure bi kenn waxatuñ du ma leen wax dara les acteurs politiques la société civile ñëpp ñu leen tàllal suñu loxo les mouvements citoyens ASC yi sax xewuñu deux mille vingt quatre dafa waroo doon loo xam ne sénégalais ñooy wane seen bopp woon àdduna bi yëpp nag nous sommes un peuple fier xam nañ ñu bëgg xam nañ fi ñu te deux mille vingt quatre mooy doon suñu vraie indépendance la vingt cinq février deux mille vingt quatre ci la suñu vraie indépendance yi démarré kon buñ ko raté ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla mu yokk sutura ci réew mi yokk jàmm ci réew mi di ñaan yàlla vidéo bi ah yàlla bu buñ ko musa teg ba ngeen war ko déglu ndax buñ ko tegee rek mooy lañ ma yéegaloon ne ñoom ña nga ca loolu loolu am na waaye bu amee duñu wàññi dara ndax ñun yàlla rek lañu gëm te réew mi rek lañu bëgg kon yàlla ñu yàlla jàppale jàppale leen def jàmm ci réew mi def ci progrès ak prospérité waaye yàlla du soppi ci réew du waa réew mi mën a soppi ci seen bopp alquran moo ko wax yàlla màndu na màndu boo xam ne laa yu xayyiru laa yu xayyiru du soppi ci réew loo xam ne waa réew ma ci boppam ñoom waroon nañ ko mën a soppil seen bopp bu ñu wanul yàlla ni bëgg nañ rek yàlla seetaan ñu dañ koy ni bëgg nañu waaye jëf nañu sax bu ñu jëfee nag ba mbir mi sës bu mënatuñu ba ne mata nasrullah yàlla kay ala inna nasrallahi qarib bu ñu demee ba mënatuñu ba yàlla di di ñu wal yàlla doog ñu feeñu rek mais tant que yàlla da seetaan jëf nag dafa jot Sénégal te jëf jooju ñu ngi ko war a mandargal le vingt cinq février bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. réew dafay dafa am moment. yow mi bind woon ci list yi pour voter ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé biñ ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer. da ngay dem police nga wuti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voté da soxla sa carte électeur